بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسول الله سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن والاه ñuy nuyu mbokk yi nga xam ne ñuy ci ligne bi yëpp ak fuñ mën a nekk nag ñi ci am yitte yal na ko yàlla faj ñi ci am jàngoro yal na ko wéral ñi ci am tiis yal na ko dindi ñi ci am naxar yal na ko dëñal ñi ci deele te ñun ñëpp deele na yàlla yërëm seen néew te may leen xol buñ ko muñee may ñu ñun ci saraatul mustaqim ba fekki yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam fekk mu ngi bëgg ci yàlla may ñu texe àdduna may ñu texe àllaaxira ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam soxla daal bu moo bumu yàlla ko yàlla faj nattu bu moo bumu na ko yàlla dindi barke yonent bi sallallahu alayhi wa sallam xam naa waxtaani tey du gudd torop ndax dañu xaw a soj eh, defe naa ñu ngi war a commencé ci juróom benneelu xadis ci ahadis kitaabil arbain nawawiya qaala alimaamu nawawiyu rahmatullahi alayhi an nucman ibni bashir radiyallahu tabaraka wa taala an jëlee nañ ci sayiduna nucman ibni bashir yàlla na ko yàlla gërëm xaala mu ne sami'tu rasulallahi dégg naa yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi wa muy wax yal nañu yàlla warsagal ñu ñëpp ñuy dégg fuñ toll yonentu yàlla muhammad sallallahu alayhi muy wax nee dégg naa ne inna alxalaala naka dagan bayyinun leer na wal xaraama li xaraam bayyinun leer na nañ wa baynahuma aji nekk la ci seen diggante nag umuurun ay mbir mushtabihaatun yu lënt laa yaclamuhunna du xam leen kathirun lu bëri min annaasi ci nit ñi li dagan leer na li xaraam leer na am na nag issue yuy bees te xaw compliqué yu bari ci nit ñi duñu xam nuñ koy doxale mu mel ni dañ ko laaj waa nuñ cay doxale sang bi sallallahu alayhi wa sallam mu ni faman ittaqa shubuhaati ku teet yi lënt istabraa setal na li diini yi ñeel diineem wa irdihi ak deram ku teet yi lënt nee na sa diine set sa der ñoŋ wa man waqaa ku tàbbi na mu nag fi shubuhaati ci yi lënt waqaa mu tàbbi rek fil xaraami ci lu xaraam li lënt nag ku ci tàbbi rek tàbbi ci lu xaram mu mel ni danga nga ne ko ma defe woon ne li lënt bokkul ak li xaram mu jox la misaal karraayi mi ngi mel ni kii sàmm yaraa kook dana mu sàmm xawla alxima ci wàllu kaaraange gi yuushiku xaw na yuushiku dana xaw an yartaa ba mu sàmm fiihi ci moom kiy sàmm fekk benn zone bu nëtëx waaye ñu def ko zone réservée ba kenn mënu fa sàmme su ko jegee ak ay gàttam te gàtt yi bëgg ñax te foofu la ñax bari mu contrôler leen dafay jafe it's very likely daal gàtt yi dugg ca tool boobule wala ca kaaraange googule maanaam domaine réservé boobule kër raayi mi ngi mel ni aji sàmm yaraa kooku dana mu sàmm xawlal ci wàllu kaaraange ga yushiku dana xaw ay yartaa ba mu sàmmat ay yartaa ba mu foytu fii ci moom alaa waawee alaa dama wa inna li kulli malikin aji sax la ñeel bépp buur ximan kaaraange buur boo gis rek am na zone bu mu jël nekk zone privée domaine réservé alaa ma wa inna ximallahi naka kaaraange yàlla nag maxaarimuhu mooy yi xaraam yim xaraamal ala waawee wa inna fil jasadi naka am na ci yaram mudratan ab lanc ida salaxat su xéwénee moom lanc boobu salaxa yéwén aljasadu yaram wi kulluhu yéppam wa ida fasadat dem yàqu na moom lanc boobu fasada yàqu aljasadu yaram wi kulluhu léppam ala mane wa lañ ci boobu alqalbu mooy xol bi buur bu ne am na fu mu réserver boppam kenn du fa ak noonu la ko buuru buur yi amee nag muy suñu borom te yemu réserver mooy yemu xaraamal te nag dox ca pegg yemu xaraamal mooy dugg ci yi lënt xadis bi jeexalee mbiru xol nga gis xaat xool connexion bi mu am ci jëfi moo xam lu dagan la moo xam lu xaraam la moo xam lu lënt la xadis ji xadis muttafaqun alayhi bu ñu xadis muttafaqun alayhi agreed upon léeg-léeg ngeen gis ko ci translation yi mooy imam Bukhari ak imam muslim yëpp solo nañ ko xadis buñ ne dëppoon nañ ci rek mooy ñaari ilimaani xadiskat yi dëppoon nañ ci bu ñu naree def taxrijul xadis na ci yoon wi ko ilimaanu xadiskat yi indee mu imam Bukhari imam Bukhari mi ngi jëlee ci a mi ngi jëlee xadis bi ci eh, góor gu ñuy wax sayid Muhammad ibn al-Muthanna mu jëlee ko ci as-sayyid ibni abi adi mu jëlee ko ci as-sayyid ibni awn an al imam as-sayyid ash-sha'bi mu ne dégg naa nu'man ibnu bashir mu ne dégg naa yonentu sallallahu alayhi wa sallam mu ne buxaari yi tamit jëlee na ko ci beneen riwaaya ci ali ibn abdillah jëlee ko ci ibnu uyayna mu jëlee ci abu farwa mu jëlee ci shaabi mu jëlee ci yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam jëlee na ko ci it ci abdullahi ibn muhammad mu jëlee ci ibnu uyayna mu jëlee ci abu harwa mu jëlee ci shaabi mu jëlee ci nu'man mu jëlee ci yonent yàlla muhammad sallallahu tabaraka wa taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam xadis bi cosaan la ci cosaanu lislaam yi nga xam ne atte yu dagan ak yu xaraam ca lay wandeelu yonentu leeral na ci sallallahu alayhi wa sallam définition lu lënt ak ban façon lañ ci war a jëfandikoo ci sharia al ci sharia al li ñuy njëkk jàng ci xadis bi mooy yëf yi ñetti xaaj la lu dagan lu leer naññi amul benn lënt bu ca nekk lu mel ni yére yi nga xam ne dagan nañu sol ko ñam yi nga xam ne dagan nañu lekk waruwaay yi nga xam ne dagan na ñu war ko yooyu yëpp leer na naññi xam ngeen ni ceeb kenn du laaj ndax dagan naam daganut yooyu dafa leer fruit seen dagan dafa leer lu xaraamit te leer naññi mooy yi nga xam ne moom lañ settee ci lekk yi ne mënuñ koo lekk ak yu mel ni ñoom ci mbir yi dagan bu dee ci muamala bu dee ci lekk yi lu mel ni lekk médd mbaa lekk deret bu dee naan lu mel ni naan sàngar bu dee lu mel ni lekk riba lu mel ni njaaloo lu mel ni lekk alali jirim yooyu nga xam ne sharia leeral na xaraamam kooku amut lënt waaw ñaar yooyu leer nañ léeg-léeg nag am lu ne ci diggante bi atte boo xam ne dafay bees ñu war koo delloo ci njubal yonentu sallallahu wa sallam war koo delloo ci njubal alquran déggin ya mën na caa wutee moom la ñuy tuddee mushtabihun bayna alxalaali walxaraami loo xam ne dafa lënt xamuñ ndax dagal na wala xamuñ ndax xaraam na loolu nag mi ngi nekk ci niveau nit ka waaye duut ne ñépp xamuñ ko te dinañ ci yegsi ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam waxul ne kenn xamul ko daf na ñu bari ci nit ñi xamuñ ko loolu mooy ñu bari yéen xam nañ ko yi lënt bu dee ci wàllu yu ñuy jëfandikoo la lu mel ni li ñuy tuddee tuux cigarette tollu woon na jamono bu nekkoon lu lënt borom xam-xam yi wutee ci waaye nag toll nañ ci jamono boo xam ne lëntatut ndax xam-xam ak euh, médecine wan nañu lor gi muy def ci doomu aadama bu mën koo rey moo tax dafay bokk ci xaraam ndax suñu borom dafa ne wala taqtulu anfusakum bu leen rey seen bopp wala tulqu bi aydikum ila tahluka bu leen sànni seen loxo ci lu leen di rey xam nga kon xaraam léegi dafay leer bu dee ci wàllu lekk yi walla ci wàllu jëflante yi lu mel ni yokk kawar boo xam ne du human hair xam ngeen ne loolu boroom xam-xam yi am nañ ci ay wute ndax dafa am ñoo xam ne dañu tegu rek ca yonent bi li mu wax ne laana allahul wasilata ñu ne yokk gi lu moo lumul am ci borom xam-xam yi nag ne yonentu ba muy wax loolu yokku karawu nit ak karawu nit moo amoon maanaam natural hair wala human hair waaye booba karawu synthétique yi amul woon kon duñ ko ci dugal am ñu ne déedéet yokk rek la wax loolu dinañ ko tuddee lu lënt bu ñuy xool nag ci mbiru lekk naan lii cosaan ci muamala mooy dagan maanaam jëflante ak yooyu leen li ciy cosaan mooy dagan lu dul lu yàlla sette ndax yàlla moo ne huwa alladi xalaqa lakum maa fi lardi jamian lu dul lum ca génnee na ñaareel bi ñu jàngee ci xadis bi mooy subuha te mooy lënt mooy lépp loo xam ne xatte ma ngi déngi déngi diggante xalaal ak xaraam nga xam ne mukallaf bi dina lënt ci moom di ci alawam ndax xalaal na walla xaraam na imaam ahmad firee na shubha ne kër la wala wàccuwaay la bu nekk ci diggante xalaal ak xaraam mooy xalaal gu sell leer naññ ak xaraam gu sell leer naññ wax na sax ci benn firim ne mooy loo xam ne léeg-léeg mu jaxasoo ak xalaal ak xaraam bu ko defee nag lu lënt ñaari xeet la lu lënt ci atte ak li lënt ci mbir ishtibaahun fi lxukum wa ishtibaahun fi lxaal lu lënt ci atte mooy lu mel ni ay masail walla ay jëmm yi nga xam ne ñaar a koy xëccoo lu xaraam ak lu dagan ishtibaahun fil lënt ci mbir mooy ku fekk dara ci néegam muy lu dagan ndax gannaaw ci néegam la ko fekk da koy dugal ci lim moom walla daf koy génnee ngir jamtalu ne mën naa am kenn ko moom bu dee sax dafa tëjoon ne loolu lënt la ci mbir ñetteel bi ishtibaa dafa nekk loo xam ne luy gaar la duut lu luñ booyal maanaam duut loo xam ne ñëpp lay dal wax naa ci ginnaaw ne mi ngi dépendre ci niveau nit ki ci njàngam masalan ni ko yonentu sallallahu alayhi wa sallam waxee ne laa yaalamuhunna kathiru min annaas te it ishtibah it buñ koy wax du nekk loo xam ne dafay aju ci texte yi nga xam ne moom la ñuy tegtaloo ci cosaanu sharia ndax loolu dara lëntul ci waaw te it tamit du nekk ci cosaan bi nga xam ne moom lañuy ñuy tegtaloo waaye mi ngi nekk ci dégginu kiy tegtalu waaye amut lu newul ci xadis ak alquran ñun kay suñ dégg ca yegg wala ñu bañ ca yegg ndax suñu borom nee na maa faratna fil kitaabi min shay amul lenn loo xam ne sàggane naa ko ba indiwuma ko ci alquran kon nag nit ki déggam mooy tax mu am lënt ci masala waaye su farloo jàng rekk dana dem ba istibaa day ci moom looloo tax lënt muy néew li muy dal boroom xam-xam ñaareel ñi seen jàng soriwul ñoom lay dal gag lay doon maanaam ñeenteel bi ñu mën a jàngee ci xadis bi mooy yonentu fa wax ne sallallahu alayhi wa buñ demee nag ba lu lënt taxaw li gën a li gën a wóor mooy nit ki téye loxoom bañ a def fa man ittaqa shubuhaati faqad istabraa li diinihi wa irdihi maanaam dana matteem du matt téel sa loxo balaa jaan di la matt kon nit ki su demee ba am problème ndax dagan na daganut li gën mooy mu bañ a def ba xam ne dagan na mu soog a def walla ba xam ne xaraam na mu continuer baga loolu yonentu sallallahu wa sallam moom la ñuy jàngal ne mooy way bi gën a wóor pour mën a wëttu lu xaraam yonentoo ngi nii sallallahu wa sallam di dox gis tàndarma ci yoon wi te mi ngi xiif soxla ko mu ne lawla anni axaafu an takuna min as-sadaqati la akaltuha doomu tàndarma bi de su ma ragalul mu nekk lu bokk ci sarax si konoon ma lekk ko waaye xam nga ne moom ak ñi bokk ci moom dañu xaraamal ci ñoom lekk sarax kon mën naa am bu ko lekkoon du ko wàññi dara waaye mën naa am mu nekk sarax te moom warta lekk sarax mu bàyyi ko ngir loolu looloo tax yonentu ak saxaabaam yi daan taral seen bopp ci côté boobu nday Aïcha doo ngi nii radiyallahu tabaraka wa taala anha di ñu nettali ne Seydina Abubakar radiyallahu taala anhu dafa amoon xale boo xam ne moo ko daan génneel xaraajam bés bi mu ñëwee maa maanaam ci xaraaj bi la Aboubacar daan lekk bés Seydina Aboubacar lekk ci li ko xale bi indil bi mu paree xale bi di ko nettali ne ko xam nga fan laa jëlee nii mu ne ko déedéet foo ko jëlee mu ne ko bi may nekk ci ceddo gi dama nekkoon bu xaaba buy gisaaneel nit ñi mu ne wante mënuma woon buxaaba dama ko doon nax maanaa li xew léegi rek ku jóg rek nekk sëriñ di dax nit ñi ne mu taseeg man tey jox ma xaalis bi walla mu jox ma dund gi ci moom laa la indil li nga lekkee nii bi mu waxee loolu sidna Abubakar dal di dugal loxoom ci putam fexe na ba waccu na lépp loo xam ne nekkoon na ko mu neewoon ci biiram loolu li tax mu ko doon def ngir bañ a lekk loo xam ne lu lënt la ba mu koy jural lekk loo xam ne lu xaraam la bi ci topp mooy yonentu bi sallallahu alayhi jàngal nañu ci xadis bi ne nit fexe ba setal deram luy sàkku la ci moom ci sharia maanaam nit du wax ne man sama yoon nekkul ci nit ñi na fexe ba bu may nit ñi lu ñu wax ci deram ndax loolu mën naa tax nit ñi xoolee ko bët boobu te baaxut waaye mën naa tax nit ñi bàkkaaru te moom moo leen di causé ñu bàkkaar te nit ki nag war naa bëggal moroomam lim bëggal boppam ndax yonentoo ngi nii di wax ne ku sori lu lënt dana seetal diineem waaye dana setal deram loolu moo tax mu rot ci asar ne fekk sa der ba kenn du ca taqal dara sarax la moo tax baadu salaf daan wax ne képp koo xam ne gaaral nga sa bopp fu la nit ñi di tuumaale mu ne fala yalumanna illa nafsa bul yedd ku dul sa bopp waxuma la bàyyi lu lënt ngir setal sa der waaye lu dagan sax dees na ko bàyyi yoonal nañ ku ko bàyyi ngir setal der yonentoo ngi nii sallallahu alayhi wa sallam taxaw ak soxnaam day sabiyatu ñaar ci lansaar romb ko ci fajar gi biñ ko rombee ña ngay waaxu mel ni ku gisul yonentu yonentu woo leen bañ taxaw mu ne leen kii sama soxna la Safiya ñu ne ko ay yonentu ba ci yow mu ne déedéet damay bañ seetaane dugal leen gis nga yonentu taxaw ak soxnaam dagan na waaye mi ngi leeralal ñële ngir rek bañ ku tabbi ci deram alku wala ku yàq deram mu ngi ñu koy jàngal ñun xeetam sallallahu alayhi wa alihi wa sahbihi wa sallam beneen bi mooy yenoonu dafa ne ku tabbi ci lu lënt rek tabbi na ci lu xaraam loolu nag boroom xam-xam yi firee nañ ko ñaari anam bu njëkk bi mooy képp ko xam ne dangaa doyadal lu lënt lu ñu wax rek ne ah li garaawut bu yàggee rek nga tàbbi ci lu xaraam képp koo xam ne dangaa doyadal lu lënt di ko def lu bari kooku gëm ci lu xaraam la beneen bi mooy képp koo xam ne dangay doyadal di def lu lënt danga dem ba miin ko wa nga xam ne njàmbaar ba def lu xaraam dootoo ko ragal bële yaa ngi koy def te lu lënt laayik li lu xaraam du ca ñàkk jaaree ci ba dugg ci lu xaraam du ca ñàkk waaye beneen bi nag mooy def gi nga koy def dina dem ba ñëme loola ba nga xam ne di nga tàbbi ci lu xaraam ci sa njàmbaar ci nga njàmbaar di def lu lënt mooy dem ba puuse la ci nga njàmbaare def lu xaraam looloo tax yonentu sallallahu alayhi wa sallam ci xadiisu tirmidi mu ne laa yablugul abdu an yakuna min almuttaqina xatta yadaa maa laa basa bihi xadaran lima bihi bas nee na nit ki du jot jaam bi du jot darajaay ñi ragal yàlla fiig bàyyiwut li aayut ngir bañ a tàbbi ci lu aay jaam bi du jot darajaay ñi ragal yàlla fiig bàyyiwut li aayut ngir bañ tàbbi ci lu aay li nga xam ne garaawul nga bàyyi ko dina la dimbale ba loo tàbbi ci lu garaaw waaye bu fekkee lu garaawul rek nga def ko bu fekkee lu dagan rek a def ko bu yàggee rek nga am fit moo tax léeg-léeg nga bàyyi lu dagan sax ngir teg ko ci sa digganteeg lu lënt bàyyi lu lënt ngir mu nekk sa fakk sa digganteeg lu xaraam loolu lu ñu sa lu ñu sàkku la bi ci des mooy waaw ndegam tere nañ lu lënt léeg-léeg yaa ngi jëflanteeg nit mu nekk boroom alal ngeen war a liggéey ensemble waaye alalam lu daganan ci lu xaraaman ci te yow xamoo nooy def borom xam-xam yi wax nañ ci benn jàngat ba am solo ñu ne bu fekkee li ëpp ci alalam lu xaraam la ci la ko amee kooku nga bañ a jaxasoog moom moo gën jaxasoog moom dañ ko sit ci liggéey imaam ahmad mu ne daf ko war a teet lu dul la ci xaraam nekk lu néew a wala muy loo xam ne xamee su ko waaye lu ñu xamul xaraamam ci jëmmam moom kooku dafay xaraam ñu jël ko bu fekkee cent mille francs yi moom xam ne ne ci sàngara la ko amee kooku mënoo ko utiliser pour liggéey ak moom bu fekkee xam ne ne ci riba la ko amee mënoo ko utiliser ci liggéey ak moom ñaareel mooy su fekkee ne li dagan moo ëpp li xaraam fuuf ci alalam ji kooku liggéey ak moom ñu ne dara new ci mi ngi mel ni ba ñu ne Aliyu radiallahu taala anhu laaj nañ ko ci buur yi may gi ñuy may nit ñi mu ne baax na ndax liñ leen di jox ci lu dagat moo ëpp liñ leen di jox ci lu xaraam waaye buur yooyu de bokk ñoo buuru tey ndax tey néew na buur jox la loo xam ne lu dagal la yonentu sallallahu alayhi wa daan na jëflante ak ahlul kitaab ak mushrikina yi te xam na ne ñoom duñu teet xaraam ba mu jeex waaye ñoom diine wàccewul àtte bi nga xam ne moom la at wàccee ci ñun kon li nga xam ne xam nañ ko ci ñoom liñ yore te mu dagan mën nañ ca jëflanteeg ñoom maanaam yàlla xatalul foofu ñetteelu àtte bi ci borom xam-xam wax mooy su fekkee mbir mi dafa lënt waa ji nga bëgg a jëflanteel xamuloo ndax li mu yoree la ci ëpp moo dagan wala la ci ëpp moo xaraam kooku mooy lu lënt biir nag sàmm mooy nga bàyyi ko ni ko al imam Sufyaan Athawri waxee ne laa yujibu li dalik wa tarkuhu ajabu li jëflanteeg ñoom yéemu ma bàyyi ko moom a gën imam Zuhri nag nee na li nga xamut daal ne lu xaraam la ci jëmmam mën nga caa jëflanteeg moom maanaam xatal gi daal moo xam kii borom alal la yéeféer la wala borom alal la jullit la xam nga ne gaa yenn ci ay business am business bu xaraa bu xaraam la waaye ñëw na yore xaalis ngeen war a liggéey te leerul la ndax lii mooy lim jëlee ci lu xaraam wala lim jëlee ci lu dagan mu ne féeg xamuloo ne lu xaraam la ci jëmmam rek mën ngeen a jëflante waaye am na ñoo xam ne nag seen càmm yegg na ci ñu bañ a jëflante ak ñooñu ndax wara moo ëpp doole zuhd bi ci des mooy yonentu sallallahu alayhi wa jàngal nañu ci bii xadis benn atte atte bi mooy képp koo xam ne booyal nga sa daaba mu sàmm ci toolu jàmbur jege ko nga booyal ko te contrôlé wuloo ko wala nga tay ko mu jege tool ba su fa yàqee dara yaa koy fay ci lu gën a wér ndax euh, li nga waroon a def mooy fexe ba mu sori fa gannaaw sàggan nga ba mu jege fa nag bu ko yàqee war nga ko fay ndax yonentu sallallahu alayhi wasallam ne na karraa'i yar'a hawla al-hima yushiku an yarta'a fiihi loolu junj na ne càggan ay tax borom tool bi borom bàyyi juróom mu dugg ca tool ba ndax bu sàgganuloon du fa jege maintenant moo fa jege ngir càggante nag kon nag na fay loolu mooy li gën a wér ci àtt yi borom xam-xam yi joxe ci àtt yooyu beneen bi ñuy jàngee ci xadis bi mooy qaidatu saddi zara'i saddu zara'i mooy fexe ba jeñ lor maanaam boo bëggee wut njëriñ te wut njëriñ nga jeñ lor mën caa juddoo dañuy bàyyi jëriñ nga ngir jëñ lor ndax dañuy wax ni ne darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalixi wala mu ne fegu moo gën faju fagu moo gën faju moom la ñuy wax mieux vaut prévenir que guérir bañ a feebar fexe daal boo doo feebar moo gën bàyyi ba feebar di faju lépp loo xam ne boo ko lekkee mën na laa jural feebar doo ko lekk ba pare di xool ndax feebar nga am déet da nga koy bañ a lekk benn yoon loolu mooy lépp loo xam ne lu lënt la te mën a jur xaraam kooku nañ ko bàyyi ndax ragal mu jural ñu xaraam xadis bi jàngal nañu loolu darul mafasidi muqaddamun ala jalbil masalih bu dee sax nit ki foog na ne bu ko jegee rek mën naa am mu ci déedéet wóorut ndax ki nga xam ne mi ci pegg tool bi yore ay gàtt gàtt bi balaa moo dugg du ko yëg moo tax ki jege lu xaraam ñaareel balaa moo dugg du ko yëg loolu tax suñu borom waxul ci alxuraan bu leen njaaloo daf ne bu leen ko jege ndax nit ki du challenge boppam ak bakkanam du challenge boppam ak boppam ak seytaane te bu koy def mooy ma ngay jege lañ ko wax ne ko bu ko jegee waxul ne bu leen ko def ndax yore suñu borom xam na ne buñ jegee rek ñaareel def ko dafay yomb téye suñu bopp dafay jafe. dinañ bokk li ñu jàngee tamit ci euh, hadith bi ci taxawaayu ban taxawaayu lañu ñu war a am ci shubuhaat yi mooy benn képp koo xam ne da nga bàyyi yu lënt yi ngir lënt gim lënt ci yow setal nga sa diine setal nga sa der ñaareel képp koo xam ne tàbbi nga ca te xam ne dafa lënt yaa ngi tàbbal sa bopp jëm ci lu xaraam ñetteel ba képp ku xam nag lay atte euh, ci lënt lënt ba kan lëntoon na ci moom gaa waaye gëstu na ba xam ne dagan na bu ko neexee dem gëstu na ba xam ne xaraam na na ko bàyyi loolu nag mooy li gën ci li euh, ci taxawaay yu nit ci war a taxaw ci taxawaay yëpp mooy fexe ba xam lënt bi ci ban fan la war a dugg mooy duul ne dafa lënt rek bàyyi nga ko gaa waaye bul yem ci bàyyi ga na nga ndax diine ji dinay xam la ndax moom bu lëntee ci yow boo jàngee boo gëstoo di ko xam kon nag na nga gëstu ngir nga xam ko xadis ji it mi ñuy jàngal importance bi xool am ci doomu aadama importance ak yitte ji xool am ndax cër yëpp xol mooy seen ruux bu xol bi sellee rek jëf yi sell waaye bu xol bi yàqoo rek jëf yu yàqu moo tax yonent sallallahu alayhi wax ne nekk na ci jëmm benn lumb koo xam ne su baaxee jëmm ji yëpp baax waaye su yàqoo jëmm ji yëpp yàqu képp koo xam ne sa xol bëgg yàlla ci nekk bëgg li yàlla ak wérantam bëgg moo ci nekk sallallahu alayhi wa sallam sa cër yi dañuy sawar ci def ko waaye képp woo xam ne bànneex moo méngoo xolam bu ko defee rek cër ya daal di ca roy moo méngoo xolam cër ya daal di ca roy cër yi daal ay soldaar lañ ñeel xol moo tax suñu borom ne yowmal xiyaam ku fa ñëw xol bu mucc rek nga koy ñëwee mën a mucc loolu li muy wane it mooy gannaaw ku jëf lu baax dinañ la fay ku jëf lu bon dinañ la fay kon kiy jëf lu baax mënta jëf lu baax lu dul xol ba moo mucc rek waaye kiy jëf lu bon mënta jëf lu bon lu dul xol ba moo tax rek yawma laa yanfau maalun wala banuun illaa man ata bi qalbin salim moo tax suñu yonentu sallallahu alayhi wa yàlla bi daan wax ne yàlla asaluka qalban saliman maa ngi lay ñaan nga may ma xol bu mucc yal nañu yàlla may ñun ñëpp xol bu mucc ci bépp ayib ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam yonentu nag ni misaalee xol bii ci yaram wi ñi koy déggee ni xol bi buy joxe deret nam waree buy waaw pompe ni mu waree yaram wi di dund nam waree rek waaye beneen xol bi nga xam ne moom lay junj ci suuf mooy xol bi nga xam ne mooy xolu xol bi xol boobu nga xam ne moom la lay waxal kooku du xol bi nga xam ne moom la docteur yi di opéré mukk xol boobu mooy xol bi yàlla di adressé kooku nag su baaxee rek di ki baax di def lu baax baax di wax lu baax baax di jëm bu baax baax waaw di eh, jëflanteeg nit ñi jëflante bu baax su bonee nit safaan ba rek tabarakallahu yàlla nañ ci yàlla boole musal ci barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni ci xol bu héwén ci la jëfi sharia yépp aju ci la jaamu yàlla yépp aju te xol nag du baax du yéwén feek ki ko bind newut ca ku ko bind nag fokk mu xam ko pour mu mën ca ne wa maa xalaqtul jinna wal insa illa li yaabuduun ibnu abbas ne ay illaa li yaarifooni fokk mu xam yàlla xam màggaayam da màggal ko wéetal ko ndax yàlla nee na law kaana fihima alihatun illa allahu la fasadata asamaan ak suuf su ci beneen yàlla newoon wala yeneen yàlla bu dul yàlla ko noon ñu yàqu wax na feneen labtagaw ilaa zil arshi sabila su fekkee asamaan ak suuf bu ci beneen yàlla bu dul yàlla newoon rek danañ xeex wala danañ jotee te kon asamaan suuf yàqu kon xol bi bu ca leneen neyee ku dul yàlla rek mu yàqu moo tax Seydina Alxasan Albasri bi amee benn waay bu koy jàmbatal mu ne ko daawi qalbak fa inna xaajata allahi ila alibaad salaahu qulubihim saafaraal sa xol bi yàlla amul benn soxla ci jaam yi lu dul xol yu yéwén yi yàlla amul benn soxla ci jaam yi lu dul xol yu yéwén yi moo tax Mouhamadul Balxi daan wax ne euh, maa ngi sant yàlla ñeent fukki at a ngi ni ma jëm ci lu neexul yàlla booba xol baa gis yàlla alxasan mi ngi naan sama bët mosuta xool sama làmmiñ mosuta tudd sama loxo mosuta songu sama ndogu mosuta dox lu dul ne xool naa li may xool wala li ma war a tudd wala li ma war a song wala fi ma war a jëm ba xam ci topp la wala ci mooy la su dee topp ma dem su dee mooy ma reculer léegi nag wax nañ ni xadis euh, bi leeral na mbir yi nii yëpp point essentiel bi nga xam ne moom la yëpp dellu mooy xol bi gannaaw ga mooy lënt lënt nag dafa am yu koy waar bu njëkk ba mooy néew xam nit bu néewee xam-xam daanaka luy leer ci moom du bëri lack of knowledge is just lack of knowledge Cheikh Khalifa Aboubacar Sy qaddasallahu sirrahu dégg naa daan na wax ne xam-xam ju tuuti ak alal ju tuuti moom ndox mu tuutee xam-xam bu ak alal ju tuuti moom ndox mu tuutee yam ndox mu tuuti feeñal na sobe waaye setalu ko borom alal ju tuuti te bëgg lu ne mu am ko ci naqar lay dee borom xam-xam bu tuuti te bëgg fu mu dem jox ko kàddu problème bu ne mu mën bëgg ko sol ci naqar lay dee ndax lu mu wax ñu weddi ko bu ko defee mu dee ak naqar bu dee alal it bët bu set mu gis lu mu mënta jënd bu ko dee mu dee ak naqar moo ndox mu tuutee yëpp feeñal na sobe waaye setalu ko bu xale tuuroon ndox fii mbaa mu def fi leneen nga am ndox su tuuti rek sotti ko ci koy gën a tasaaroo kon bokk na ci yii tax masala lënt ndax dagan na wala xaraam xam-xam bu néew kon nag li koy dindi mooy jàng ñu ngi nii di jàng yal nañu yàlla ñu xam yaara bi parce que yonentu sallallahu alayhi wa sallam ñaareel bi mooy xillatul fahmi dégg dégg ndax xam jaaxal téere yi bokkul ak dégg dégg daanaka mën nañ ko tuddee ràññee maanaam mooy ni yàlla di tuddee xikma xikma arab yi ñu ne mooy wadu shay fi mahallihi yàlla wax na ci alquran ne li ñuy jox ci xam-xam tuuti la xoolal xam-xam yi ni ñem ci àdduna waaye bi mu ñëwee ba ci xikmatu muy euh, xam-xam gu am ak gu am njëriñ muy wasdam mu ne ku ma jox wasdam jox naa la yiw bu bari wa man yuutal xikmata faqad uutiya xayran kathiran kon dégg waaw nit jàng na téere te ràññeewul ñàkk a ràññee dina tax lu ñëw nga xaraamal walla nga daganal te doo xam foo koy teg moo tax lënt ci lu xaraam lu dagan ñàkk xam-xam dina ko waral waaye néew déggit dina ko waral ñetteel bi mooy at taqsiru fi tadabburi mooy gàttañlu ci settantal léeg-léeg masala dina ñëw rek boo xëy boo boo boo rek li ngay gis ci saase mën naa nekk njumte bu rëy waaye boo toogee setantal setantal setantal di nga gis yoon waaye boo setantalul boo moytul di nga joxe atte bu dee sax xam nga dégg nga waaye jëluloo temps bi war pour seetantal masala moom mën naa tax nga juum ci léeg-léeg dara dinañ la ko wax rek automatiquement nga am réaction waaye danaa dégg ñu ne euh, benn mbokk def naa moom ma koy nettali ne Sëriñ Fàllu nee na ku ne tekk tekk woon la yoon ku ne tekk tekk woon la yoon maanaam tey ak seetantal masala bi dafay am solo ñeenteel bi mooy suuwul xas bi mooy ñaaw jublu mooy yow in the first place am nga loo amoon intention loolu rek ngay xool boo moytu loolu rek ngay gis su fekkee nag da ngay xool li nga xam ne moom la yàlla bëgg yaa ànd ak xam-xam ànd ak dégg ànd ak setantal sama borom mën na laa woon yoon bi iznihi subhanahu wa taala yal nañu yàlla woon yoon ñun ñëpp ba lépp lu lënt ñu xam ko lépp lu dagan ñu xam ko te def ko lépp lu xaraam ñu xam ko te ba ko ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu tabaraka wa taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kon bokk na ci xikma yi tax yàlla bàyyi fi yenn yoo xam ne dafa lënt mooy xool ñi nga xam ne xam-xam jaral na leen ak ñi nga xam ne xam-xam jaralul leen ñetteel bi it mooy amut lenn masala benn masala bu aju ci sharia lu dul ne rek luñ war a xam la ndax sama borom daf ne laa yaalamuhunna kathirun min an naas ca alquran tamit mu ne illa allahu wa rasixuuna fil ilmi ibnu abbas mu ne ci la bokk kon kay dafay am ñu ko xam ak ñu ko xamut te boo góorgóorloo rek yàlla ubbil la bunt ba nga bokk ci ña ko xam waaye gannaaw atteb sharia la sharia moom ñëpp koy xam sharia moom ñëpp koy xam summa jaalnaaka ala shariatin min al amri te nag boo ko ko mën a topp waaye bullantee nga taxaw bu leeree rek nga dem noonu la yëf yi bokk na ci yi ñuy mën a jànge mooy booy teet yu lënt yi mooy na dalil taxaw ne lu lënt la waaye su fekkee ne rek yow ci sa bopp rek la lënt te am nga dalil buy wane ne dagan na loolu ñaareel seytaane moo lay jax-jaxal wala mu nekk feebar wala mu nekk ak taral te taral nag bokkul ci diine da yonentu mu ne yàlla du yokkat fi du yokkatu leen lim ne moo baax rek moo baax lim ne moo baaxut moo baaxut kon nag euh, dinañ jànge ci xadis bi yu bëree bëri euh, dinañ ci jànge beneen mooy rafetuk te loolu li gën a am solo la ci xadis bi mooy yonent bi ni mu rafetee ci ni muy jàngalee sallallahu la wa sallam mooy lépp loo xam ne dañ daf ko wax te mu am daf koy indi lépp ngir jegeel ko xel yi ba ngir euh, daf bu dee lu aju ci maanaa la daf koy yëgal ba nga mën ko laal mu mën laa yeggloo ca la nga xam ne moom la bëgg nga dégg te loolu nag mi ngi ci roy alquran ndax borom alquran la ko jàngal wa tilka lamthaalu nadribuha linnaasi wa maa yaqiluha illa al aalimuun kon nag yooyu mooy yi nga xam ne mooy yi xadis bi jottaliku waaye li mujjee it ñu bàyyi ci xel muy mbiru xol ndax xol moom bu baaxee ni ko yonent wax yëpp baax waaye bu yàqoo yëpp yàqu afalaa yaalamuun ida bu'thira ma fi lquburi wa xussila ma fi suduri ak innahu ala rajihi la qadir yawma tubla sarair xol bi moom fa la yëpp nekk kon nag nañ setal suñu xol yi ba nga xam ne jàll rekk ciy nekk génnee ci réer génnee ci bokkaale génnee ci mbañeel génnee ci merewante génnee ci bañante génnee ci bokkaale yàlla génnee ci bidaa génnee ci bépp jikko boo xam ne dafay dàqwanteeg li yonentu sallallahu alayhi wa sallam jàngale ndax xol ni ko yonentu mooy cosaan dinañ ci jànge it nag ne képp koo xam ne yaa ngi mooy yàlla wala yaa ngi sàggane yàlla digale buñ la waxee nga ne ah xol daal moo am solo te sama xol baax na dañ lay wax ne xéy ba ngay fen dëgg la kay xol rek moo am solo waaye bu sa xol baaxoon rek mu feeñ ci sa jëfi ndax xol mooy commandant wu cër yi bu xol baaxee rek cër def lu baax waaye bu cër yi di def lu bon rek li muy wane mooy xol yee bon yal na yàlla baaxal cër yi baaxal xol yi ci barke yonent yàlla muhammad sallallahu tabaraka wa taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kon nag xadis bii moom la ñu indi woon jëlee ko ci yonent yàlla muhammad sallallahu tabaraka wa taala alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam mu ñuy wax ne xalaal lu leer la xaraam lu leer la yi ci diggante bi yu lënt la ñu bëri ci nit ñi xamuñu ko ku teet li lënt setal na diineem setal na deram ki tàbbi ci li lënt dana tàbbi wala tàbbi na sax far ci lu xaraam mu misaal ko ne ka raaci yarcaa xawla alxima yushiku an yartaca fiihi ala wa inna li kulli malikin ximan ala wa inna xima allahi maxaarimuh ala wa inna fi ljasadi mudgatan ida salaxat salaxa aljasadu kulluh wa ida fasadat fasada aljasadu kulluhu ala wa hiya alqalb wal xadiis fi lbuxaari wa fi muslimin foofu la ñuy yemandi inchaa allahu tabaraka wa taala xam naa ne am na ñu nekk ci ligne bi dinañ ubbi ligne bi ehm, bàyyi nit ñi incha allah tabaraka wa taala yeneen juróom bu fukki minute wa defee ku am lenn lu bëgg ñu gën ko ci leeral ñu ehm, delluwaat ci incha allah tabaraka wa taala wasalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatu liñ bi ay minutes nañ ko képp ku ñu ngi ñaan la képp kuy waxtaan mu xam ne ñëpp dinañ ko dégg su fekkee ne euh, amul question mu bañ a wax su fekkee am na question incha allah tabaraka wa taala euh, mu joxe ko bismillah Sall Diop ñu ngi ziar amin barke yonent Yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam amin na def nag dëgg la dëgg la alhamdulilah alhamdulilah baa tardé am nga dégg am nga dégg macha allah macha allah alhamdulilah. Mm-hmm. mm-hmm. laa yaxillu li muslimin an yafaala filan xata yaclama xukma allahi fii ab jullit daganul mu jëf benn jëf lu dul mu xam li ci yàlla àtte yàlla moom ba mu wàccee alquran yónni yonantu sallallahu alayhi wa sallam mu leeral ko booba kenn amatul ngantu xaw ma woon su fekkee ne kay dafa laajte xamut wala dafa laajte ñu wax ko lu dëppoowul ak loolu mu xam mu foog ne lañ ko wax noonu la kooku mën na yox dafa duggoon ci erreur waaye ki nga xam ne moom dafa xëy rek def lu ko neex jéemul la xam ndax naa naag daganul te ñaareel nag ñi lay wax ne xamuñu xam nañ ndax daanaka yi dagan moom ni ko yonent bi waxee leer na nañ yi daganul tamit leer na nañ léeg-léeg nga toog daal gis bu ne la ah, Amérique lañ nekk wala troisième millionnaire pour jëflantuwul ak nangam doon nangam waaye yàlla mi yónni yonent bi xamoon na ne dinañ ñëw Amérique xamoon na ni troisième millénaire dina yegsi lislaam nag diina ji la joo xam ne duñ ko àtt mooy àtt al islaamu xaakimun wala sa maxkuman ci gàttal daal ab jullit sañula la def dara lu dul mu xam la ca yàlla wax su ko xamee baax na su ko xamul nag mu laaji borom xam-xam su fekkee ne nag borom xam-xam jox na ko àtte te moo juum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 Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. Mm. parce que alors am nga am nga am na koo xam ne yàlla moom kenn mënu koo nax parce que yàlla moom kenn mënu koo nax yàlla eh, dafa wax ci alquran lu raglu ne i'malu ma shi'tum def leen lu leen neex innahu bima ta'maluna basir waaye na leen leer na lu ngeen def rek maa ngi ci teg bët tax yàlla nañu yàlla xiir ci lu baax mm-hmm, mm-hmm. na solo waaw kay waa d'accord waa d'accord waa d'accord waa d'accord jërëjëf Sall jërëjëf maa ngi abu bu baax xale yi allah ku am question rek mu gaawal parce que bëgg nañu tëj balaa onze heures incha allah sinon soxna Fatou Sall nga laaj ci benn question bi. ah. waaw baax na amul solo comme ñi comme waa leçon bi dañu bari kersa ba duñu laajte. waaw. <laughs> déedéet loolu du xabla du baada xam nga boo déggee ñuy wax xabla ak dafay aju ci dafay aju ci nga bàyyi boo bàyyee sunnaay wax maanaam lu mel ni saar soo ko bàyyi woon yaa ngi may dégg ci lay ci la xabla di war waaye bu fekk lépp loo xam ne lu ñuy wax la suñ ko yokkee it du tax mu waral su jot are you getting masa masalan xam nga boo bàyyi woon saar xam nga boo bàyyi woon saar boo jàngoon Faatiha bàyyi saar xam nga da ngay sujjoot xabla ndax ndax bàyyi nga saar bi bàyyi nga taxawaay ba bàyyi nga biral ga bu fekkee lu ñu war a biral la wala lu fekkee lu war a yelu la muy ñett sunna waaye su fekkoon ne dangay jàng benn saar mu jeex nga jàngaat beneen saar mu jeex nga jàngaat beneen saar ba saar yi lu mu bari bari du tax nga sujjoot likewise boo jàngoon faatiha ñetti yoon wala ñeenti yoon wala nga fàtte sa faatiha ba ci digg bi nga ñëwaat jàng ko soo a jàngaat saar du tax nga sujjoot boo fàttee sa faatiha daal ba ci digg saar bi nga fàttaliku ko eh, dangay ñëw rek nga jàngaat faatiha waaye doo sujjoot nag ndax lu ñuy wax su fekkee moom lañ yokk du waral sujjoot mu ngi mel ni ku juumoon wax sami Allahu liman hamidoo ñaari yoon mbaa muy sëgg wax allahu akbar ñaari yoon yooyu yëpp du waral sujjóot bu fekkee nag ne waaw waaw lu ñuy sujjóotal mooy jëf bu fekkee ne jëf la nga yokk walla yenn wax nga wàññi ku yokk jëf ci lay sujjóot di am walla nga wàññi jëf mbaa nga wàññi li ñuy wax waaye fekk li nga yokk lu ñuy wax la rek du waral sujjóot are you getting it da nga mooy danga nga rukkoo ba pare danga nga pare nga sujjoot waaw bu fekk bu fekkee ne danga nga xam nga bu fekkee baax da nga sujjoot moom affect affecté wul julli gi bu fekkee baax da nga sujjoot affecté wul julli gi bu dee xam la nga sujjoot tamit gannaaw xamuloo ko woon du ko yàq mhm. Mhm, alhamdulillah Mhm. xam naa tabaarakallahu fii dañuy waaw defe naa am na ñaari minute ñu bàyyi euh, mbokk yi su fekkee ne am nañu benn euh, waaw dafa mel ni nit ñi xam naa ne eh, am naa ne dañuy reer wala yu demee noonu xam naa incha allahu tabaraka wa taala ñëw ah, tàggoo rek fii ba alxames bi di ñëw bu soobee yàlla ñaan suñu borom mu defaroon ñu dégg ak topp ñaan ko mu defaroon ñu suñu zaahir ak suñu baatin liñ jàng ci xadis bi yëpp mu may ñu dégg ko barke yonent yàlla Muhammad sallallahu alayhi wa sallam te ko war a jëfee